ko ci ay euh, parti ak mouvement yoo xam ne dañoo fas yéene booloo faire face au régime actuel ci élection législative anticipée bi ñu dëgmal ci novembre am na ci ñoo xam ne ay candidats lañ woon 2024 euh, am na ñoo xam ne ay candidats lañ woon ñoo xam ne ay candidats àndal mais malgré xaj na euh, yenn divergence yi ñu amoon avant Euh, Abdoulaye Cissé ndax jàpp nga ni ci lii ñu dëgmal nii dinañ mën a juboo de telle sorte que dinañ mën a am benn opposition bu dëgër pour faire face quand même euh, au régime en place. Euh, da xool objet bi nga xam ne moom moo leen boole am na loo xam ne objectif commun la ñu bokkee ko donc ils peuvent s'entendre sur ça boo xoolee historique gu sax création ay front fii Sénégal. depuis bu ma remonté pas plus loin que FRTE par exemple da ngay gis ni évidemment mën na large mën na boole ay parti yoo xam ne bokkewuñu dara dañuy xeexante sax mais am loo xam ne ni objectif commun la nga xam ne ci loolu la ñuy déggoo pour mener seen combat ce qui est étonnant mooy le pouvoir en place en cinq six sept mois mën a fédérer une grande partie de l'opposition contre ni nga xam ne noonu lay euh, doxalee ça quand même c'est ku leen waxul leneen lu dul loolu mu ngi leen di nax parce que. ndax guleet la. non dafa teel. Ah, dafa guleet bi guleet bi ci teel bi moom. guleet bi moom sa sa doon la première fois. Hmm, cest à mu am régime bu toog yàggul dara opposition bi lu ci ëpp daje nekk benn. oui parce que da ngay xool hmm. boo jëlee ci ñaari alternance yi rek. Hmm. ñaari alternance yi rek. président yi falu muy président Macky Sall. Mhm. rempla muy président Abdoulaye Wade déjà di président Macky Sall ñoom ñaar ñëpp bi ñu yegsee sax fekkuñ fi majorité boo xam ne moom la ñu am assemblée nationale. Mhm. te pourtant naxante déggoo nañu ba Abdoulaye 2001 la def référendum. 2001. Macky Sall aussi doxal na lu yàgg ba def euh, débat budgétaire am ak yëpp mhm. doog ñu door dugg ci te tas assemblée nationale su lu ñu déggoo la majorité yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon donc bi dafa teel mais en plus quand même c'est pas à négliger mu am ay bruit de contestation de l'intérieur de ce qui était la coalition Diomaye président ci ay leader de premier plan dégg nañu Moussa Diop et puis en fait ce qu'il raconte c'est le manque de concertation le manque de démocratie cest à bañ leen a yox cër bañ bañ a mu bañ a doon ànd nawle àndu boo xam ne ni dañuy joxante cër après am na loo xam ne xëy na njiit mën na ko dencal boppam mais bañ a jox cër ñi nga àndal loolu moom musul am mujj musul am mujj lu mu la yàq lu mu la yàqalul du la ko defaral. xëy na nag mënoon nañoo créer cadre de concertation boo xam ne bu njiit la Ousmane Sonko amul temps am ñu mu leen bateleel ñu nekk ci un cadre intermédiaire boo xam ne dina am ay discussion am ay réflexion mais bu ñu demee bay dégg ni groupe ba ñu doon waxtaanee sax tëj nañu ko ci loo xam ne waxtaanee wuñu ko du ci coob ci coobareeb nit wala ci loo xam ne nii ñoom ñii leaders yi yëguñu ko ça commence à poser problème ba pare nag à l'inverse nga fexe ba ña nga xamante ni nii xëy na mënoon ngaa fexe parce que adversaire divisé pour mieux régner la ñuy wax mais foo fexe ba say adversaire booloo mënula jural jàmm te loolu dafa teel a feeñ en fait ci ni nga xam ne ni régime bi moom la doxalee te boo xoolee ala kulli aussi c'est très légitime li nga xam ne moo boole waa ATEL. parce que évidemment processus électoral bi ni mu doxee wax dëgg fa yàlla Sénégal rombon na fii. Sénégal romboon na processus électoral boo xam ne lépp ci décision unilatérale u exécutif bi. lay jógee ça quand même bon je pense que dépassé woon nañ ko moo tax sax mu berte en fait. parce que lu ñu dépassé woon la lu ñu romboon la parce que processus électoral amatul enjeu wu xëccoo parce que à la fin de la journée. nombre de bulletins trouvés dans l'urne la donc jarul woon yenn voilà ak naxante yi ak yooyu en fait c'est ça qui est c'est ça qui est hmm. euh, ndax am ñoom tamit ñu ngi annoncé waa ATEL benn mobilisation euh, vendredi prochain ndax loolu xaj na benn test la nar a doon également pour xam euh, dëgg-dëgg seen tolluwaay jamono ji laataa ñuy egsi ci législative yi. bon seen tolluwaay je pense que suñu sukkandiku déjà ci élection présidentielle yi ñu hmm. génn. dañuy dañuy am doole. mais mais boobu ku nekk da nga demoon ak sa wàll. mais bii ñoom ñëpp dañoo nar a dafa demoon mais imaginer ñoom ñëpp suñu booloo. Euh, for forcément dañuy am doole te ni ñu koy waxee euh, il s'est passé énormément de choses. te li li waral euh, li fédéré ñi comme ni ko Ablaye doon waxee peut-être que mën na. phagocyté aussi ñeneen ñoo xamee ni ce ne sont pas des politiciens qui sont en première ligne souvent mm. ba ñu ñëw euh, ànd ci euh, li def et surtout légitimité bi nga xam ne Ablaye wax na ko léegi tamit moom moo waral euh, ñu ñëw ba booloo nii pour ŋàññe processus électoral bi ni mu demee mm. mais là bon je pense que c'est de c'est guerre aussi parce que délai bi ñu leen teg pour ñu dem élection xam nañ ni s'ils y vont en ordre dispersé euh, forcément ils von perdre te là même suñu dajaloo sax wóorul ñu gagné parce que on est face pouvoir boo xam ne qui a été plébiscité euh, il y a six ou sept mois de là pouvoir boobu soxla aussi ñu joxaat ko les pleins pouvoirs pour mu diriger euh, maanaam mener à bon port son projet comme ni mu ko waxee mais ñi euh, gisewuñu ko noonu te soo xoolee tamit ñi ko seq Euh, li reetaanlu mooy ce sont les ennemis d'hier <laughs> retrouve euh, autour du c'était le cas aussi à la les les euh, les derniers mois du régime de Macky Sall mm, aussi loolu lañ loolu lañ mi ngi mel ni mm. kàpp mi ngi mel ni nga jël Mimi Touré dem tey ji <laughs> nekk ci structure xaw ma Pastef président Euh, c'est presque pareil parce que moom tamit ci beneen côté bi nekkoon di xeex ak ñoom di jàmmaarloog ñoom tey jii ñoom ñoo ànd fii aussi je pense que exemple yu bëri <laughs> euh, mais comme ni ñu ko waxee naata bon c'est c'est de bonne guerre euh, manifestation bi le vingt le vingt sept est-ce que kiiw manifestation Ousmane Sonko bi c'est quel jour le 27 également donc ça veut dire que la date n'a pas été choisie comme ça <laughs> par hasard am na lu ñu bëgg je reviens encore comme ni ko Ablaye waxee dafa teel. nee nañ nee nañ doo am. mais mais toute façon dafa teel teel teel na nguur goo xamee ni euh, ñëw na nekk en place euh, en l'espace de cinq mois six mois euh, bëgg a fédérer opposition boo xamee ni dañuy ñëw di organiser ay manifestations ay marche suñu ko autorisé suñ ko suñ ko autorisé wul mu andiwaat yeneen coow et c'est fort probable tamit hmm. loolu loolu loolu loolu am on espère que dañu euh, yegg foofu parce hmm. que là du day tax yoon mi ci élection yi métti te hmm. Sénégal dundu na loolu jëlee ci ay jafe-jafe ñu war ci jàng ay leçons ba wax dëgg fa yàlla du ñu jaaraat ci yoon hmm. boobu la. alors euh, bu ñu taxawee tuuti ci atel boo waxee ci loolu ba pare yaa aussi le cas Amadou Ba parce que bu ñu fàtte ni moom moo ñëwoon nekk deuxième ci élection présidentielle bi moom nag taxawaayam. waaw ah, moom ñoom it ñi ngi woon ci atel parce que signature bi njëkk a génne si communiqué bi Amadou Ba mi ngi ci woon ci ñi nga xamante ni ils sont signataires ci euh, li waa atel ak gis nañ fa ñu ànd ak moom it ñoo xamante ne kon ñu ngi ci mais taxawaayam bi moom mooy ala kulli al booloo rek quoi dina métti rek nag moo tax foofu moom pour ñu ñoom ñëpp ñu ànd ci liste moom du yomb parce que déjà nee nañ cent dix mouvement ak parti la te jamp na jamp koo xamante ni dans une semaine ngir ñii ñu mën a déggoo xool du yomb xëy na kay ñu ñi mën ànd seen biir ñoom ñoo ànd te buñ demee comme en ordre dispersé loolu pouvoir bi lay gën a favoriser mm. parce que doon nekk élection boo xamante ni nature bi day favoriser toujours ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk bloc ànd xëy na Yewwi Askan Wi li taxoon ñu a gësam Macky Sall ci jamono ñoom noonu la woon de parti bu mag boo xamante ni ay parti la ñu àndoon. Mm. dem ba ban am surtout seen intercoalition boobu. mais loolu dafa laaj temps déjà pour intercoalition am parce que yaa ngi wax Amadou Ba mais parti PDS kenn déggu leen xamul ñoom. génn nañ génn nañ seen communiqué na comité électoral yi nañ daje ca biir PDS aussi euh, ay jafe gis nga Woré Sarr ñoom Doudou mm. Wade ak génn nañ ñoom it euh, fële daanaka nekk ay dissident ci biir di ni mu a demee fii ci élection yi moom moo koy indi parce que ni ko Moussa waxee démb ci RTS gis nañ ko ak Miki Maram Ndiaye mu wax ko te du moom kese am na même y a kilifa yoo xamante ay ministre la ci suuf da dégg ñuy xuun parce que amut concertation boo xamante am na seen biir jëm ci la paradoxe la nag ci politique Sénégal moo demee noonu parce que ni ngeen ko waxee il deux ans lañ doon dem ci ay élections la des ci campagne ku mel ni Khalifa Sall nekkoon fa démb mu ngoon de l'autre côté ànd ak ñoom Sonko lii lañ doon xeex contre Macky Sall tey gis nga ko Khalifa xam naa bu ñu place de la nation ne ñoom fii lañ daan nekk ba ay gone si doon ci ñàkk seen bakkan euh, mooy wax ni politique Sénégal moom gis nga ko li ñu wax. maintenant ministre de l'intérieur euh, samedi incha allah dina leen dajale fële euh, processus ba nga xamante ne delluwaat ginnaaw ci yenn yi dina mën a yomb c'est malheureux quand même pour la politique sénégalaise ak fi ñu toll surtout que dañu am président encore une fois boo xamante moom nee dafa démissionné nekkoon secrétaire général ci partem moom euh, ñu fi doon xeex na léegi président sax warul nekk président de la république ba nekk. jiite parti moom amul loolu mu ne woon de discours bi mu defoon le 3 avril ne day nekk au-dessus de la mêlée ba nga xamante ni kon bu jafe-jafe amee sax moo leen war a àdde mais jafe-jafe bi Sénégal nekk président bi moo leen ci dugal ndax boo ko conseil constitutionnel tontoo bu doon cay jamono kon wax na fi mu bëgg a jëm nit ñi xam waaj kon lii duñ ko dund élection loolu quand même mënoon nañ ko éviter Sénégal. may ma hmm. barki démb je pense euh, ci processus électoral. exactement Maïmouna euh, Maïmouna moom tam dafa mel ni euh, elle est toujours ouverte à des concertations ba tey. Hmm, toujours ouverte mais pour man daal li ma xalaat mooy naata déggoo bi du du du yomb parce que 110 partis lañu wax ak mouvement politique pour ñu déggoo xanaa kay xel mën naa. Euh, xel mën njort bu rafet mën nañ ci am euh, ci côté bi ñu naan concertation peut-être amu ci loolu ñëpp ñëpp xam nañ ni déggoowuñ ci ponk boobu mm. ñoom ñëpp gis nañ ni concertation amul ci loolu lañ nas pexe ne dañuy bët dem gisi kilifa yi diine yi rawatina ak kilifa yi nga xam ne jox nañ leen bopp ci réew mi pour euh, waxtaan ak ñoom pour xool ñoom tamit nan lañ ci mën a def ndax délai yi gàtt na loolu peut-être dinañ ci am dara ak rassemblement bi peut-être xamaguñu nag ndax dañ koy autoriser Euh, mm. pour man euh, waxtaan bi daal ñoom lay profité. Mm. actualité politique merci beaucoup Maimouna dinañ ci euh, dellu waat ci kanam ñaareelu pàcc bi rawatina ak suñu gan di Yoro Dia nekk politologue nekkoon itamit ministre ñu jàll ci beneen ponk un au Sénégal un jour dans le monde. waxtu taxaw ci ñaar fukki fan ci weeru septembre 2023 daaw la ci euh, li nga xam ne mooy personnel MINUSMA yi